nek ci ben parcours de l'entrepreneur te ñu xam que structure fi état tech yu melni ni DRFJ yu melni ay 3FPT dañu nek tey jii pour jappalé len accompagner len manam suqali len ci seen métier moy renforcement de capacité bi formation bi ba paré taxawu len ci walum financement mo xam ci fonds de roulement mo xam ci équipement ñu ne guléet parce que dañu fogon ni cible bobu xeyna bokul ci ñi nga xamante ni structure état yi war na leen tàllal seen loxo tey jii nag ñu joxe wane ni que lu possible la lu possible la ndax tey jii boo xoolee lim lañu lu toll ci téeméer ak ñeent bénéficiaires yoo xamante ni jot nañu financement à travers GIE bi euh, ñaari GIE yi nga xamante ni dañu bokk ci association nationale bi nga xamante ni mooy tëgg taabal mooy association nationale des bijoutiers ñuy rafetlu loolu tamit loolu ndax boo xoolee li yombal liggéeyu deer ak li yombal liggéeyu 3FPT dafa fekk ñu nekk mbooloo te ku ni mbooloo nag xam naa comprendre nañ ni ko foofu dañuy mutualiser doole yi dañuy boole doole yi te dinañu permettre ñun ñu am assise bu wóor pour mun a état teg dispositif mi taxawu leen jàppale leen ñu ne nag ñun bëgguñoo yem fii ak ñoom ndax euh, DER dafa teg li ñuy wooyee parcours de l'entrepreneur te ci parcours bobu amna yenen yo xamanteni ñom wax nañ ko fi tay jii ci joko bi ñu def ak ñom ci waxtaanu pencoo bi ñu def ak ñom ñu mu tollu mu nekk ci walum naka lañuy gëna mëna a suñu loxo yokk suñu loxo bi nak dafa laaj ñu ñu ñu jox leen ay outils ci walum entrepreneuriat ñu gëna mëna téyé a seen activité mais dafa laaj tamit ñu xol naka lañuy dafé yenen programme ñu gëna a

war nañoo mën a satisfaire suñu demande fii ci ci bijouterie te loolu day laaj ñu am technicité bu baax am finition yu rafet te loolu yëpp formation bi moo permettre permettre lan tamit touristes bu ñu tamit ñëw ko ni Maroc bo demee Tunisie wala nga dem Inde wala yeneen dëkk te bu loolu weesoo tamit ñoom ni ñuy jaayee ci yeneen dëkk yi tamit ñu gën a mun a jaay moo xam ci Afrique bi la moo xam génn Afrique tamit ñu gën a am yoo xamante ni ah dañ ñu koy nawee nawee Sénégal parce que tey jii xam nañ ni que qualité baa ngi fi ah di rafetlu tamit li ñu ni guléet mais guléet bi yal na ba mu fi yem ñu ngi ñaan tamit euh, ñoom ñi nga xamante ni jot nañu financement yi aussi remboursement bi topp ci ndax ñiy xaar ci biti

Nous xam ne GIE lañu ak ñoo xam dañuy liggéey ak seen jabar donc loolu impact en termes de création d'emplois en termes de aussi de création de revenus. donc pour moi, lu gën am solo mooy loolu de la DER aussi c'est impulser l'entrepreneuriat à travers l'entrepreneuriat, créer des emplois donc loolu aussi il faut ñu souligner ko donc financé na ñaari GIE premier GIE bi ce qu'on appelle le GIE de C'est c' un GIE national boo xam ne financé nañ leen millions deuxième GIE, c'est ce qu'on appelle le GIE Ande Soukali, son métier. Donc, nous finançons 11 800 000 pour 27 bénéficiaires. Donc, nous finançons les nous Donc, nous avons fait ce que nous avons si c'est ce que nous avons fait, c'est Parce que nous aussi des participer aussi pour nous faire un le développement réel. Moi, je Sénégalais, je suis ici, les filles. aussi tête aussi fille. Sur une première phase, après, il faut que nous nous pour établir un programme national pour au-delà de régions région a une ambition territorialisation des politiques publiques tous les départements ont aussi objectif la donc euh, faut nous appeler, GIE ensuite tout avons que nga xam ne Tamba aussi matière première aussi les équipements qu'il faut